ndaanaan laa ñaari yoon kon boo jaar booba laa mëne foo jaar fafa laa mëne dama mën ci bii boor mën bee boor mën ci yi ak ci yëley boor bàyyi fàtt njaay nu ñoom cuuna rëy ma juub waa na roy ma saay maa baaxi jeeg ñii ma yor siy jeeg jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb bàkk ba jib na générique bi départ na jàngat làmb tàmbali na père Baye Djili per Birahim Ndiaye mbokk yi ñu leen di nuyuwaat encore une fois fépp fu waay mën a nekk ci réew mi ak bitim réew ngay safoo wasaare làmb rek ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax fan yi moom gis ngeen xew-xew làmb yi nga xamante ne wasaare làmb dem nañ dégtal leen ko indil leen ko ñu commencé ko ci point de presse bu Boy Niang euh, les lutteurs en activité barki démb CNG bi gis ngeen lépp ngir bëgg a dab seen bànneex mbokk yi ñu leen di jëfalaat bu baax a baax di jaajëfal sëñ Basiru borom mbég meeg taar bi gis ngeen direct bi nga xamante ni def na ko ci deux jours yooyu ñu koy jaajëfalaat bu baax a baax a baax mbokk yi kon noonu la ginnaaw loolu damay bàyyi Père sama xarit sama père Père Birahim Ndiaye ma nuyu ko mu nuyu mbokk internet yi su ko defee ñu wéyal waxtaan Père maa lay nuyu bu baax di la siyaar. waaw jërëjëf. auzu billaahi mina Hmm. rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli hmm. salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu mbooloo mi nga xam ne ñu ngi safoo site bi tudd Wassare Lamb bokk bokk internet yooyu ñëpp maa ngi leen nuyu di leen siyaare di leen ñaan at mi ñu génn tamit yàlla na dàq at at mi ñu jëm Mm-hmm. parce que at mii ñu daal toll moom fi ñu toll ni moom. Mm-hmm. nañ ñaan yàlla at yii di ñëw dàqal mu bañ a. waaw yàlla bu 2020 parce que Covid sonal na nit ñi sonal na ñëpp liggéeykat yeeg. Mm-hmm. bërekat yeeg sport que képp ku yëngu ci dara rek. waaw Covid bi ja bu wér seen say biir. dëgg la waaw. Mm. kon nag tey yàlla na yàlla dimbali ñu ba mu jógee fi ba ñu. di ko nettali te yàlla boole ñu ci ñi ko ñu fekkee ñi koy nettali nag. Mm. ñu ma. Mm. ñu fekkee ko loolu tamit ñu koy ñaan maa ngi di nuyu di leen ñaanal jàmm. di ñaan sama kàddu yàlla na yàlla fekk ci jàmm. Euh, di kontaan trop tey jii ñu toogaat tamit comme ni ñu ko daan defee rek eh, di ñaan ci yàlla lépp lu ñu fi wax rek muy lu saf nit ñi. Mm-hmm. waaw mu yàlla musal ñu tamit ci accident wu làmmiñ. amiin yaa rabbi waaw mm-hmm. waaw loolu. dama laa jàppale ci bés bi de mais père sañse nga de macha wàññi benn bi sax ñett la woon. Eh, benn bi dama ko wàññi. mu bëgg a ah yett <laughs> ñett la damaa wàññi benn parce que xam nga. Uh-huh. dama ne woon bu ma ñëwee. Uh-huh. suñu benn bi teg na le. Uh-huh. bu koy def plateau ba sol kon ni ma toogee nii ba pare sol waaye far ma génn rek. Ah. tàngoor bi xaw a metti ci man. waaw ah, nga di xaaral ma rek ma teg ñaari rek. beneen bi kon beneen bi mucc na. waaw mucc na koy baax na ba moom soxna sànq ko lem teg foofu. ndeysaan père bii ah. moom rafet na macha allah. bii de moom tubaarkàlla ah. macha allah. ci mbañ ñu mën a génne ma ne dem xew la de. ah waaw kay laaw la cet. manees na cee dem xew de. laaw la sant yàlla macha allah jërëjëf père Birahim Ndiaye. comme nga jëy maa jëyee Ah, ah, ah, billaay lu rafet nga sax dara sax boo tax ma lay jàppale ci biir bi comme xam ñu ay boy discours def collant def yooyu yow moom macha allah mm, mm, mm. bul tax mu dugg ci jasneer yi waay <laughs> mbokk yi noonu la demee sama papa la père Birame Ndiaye di am kontante bu baax a baax a baax di bokk ak moom plateau bi père li ma bëggoon ñu waxtaanee ko mooy euh, li njëkk mooy dafa am coow loo xamante ni dugg na ci làmb commencé ko ci aide bi nga xamante ne état mu ngi ko doon dimbalee bari ci réew mi mm-hmm. làmb gisuñu ci woon seen bopp loolu mm-hmm. waxtaanoon na ci ñu bëgg a bëre tax Boy Niang woote point de presse mm-hmm. keroog malgré am na mbëri ñu ñëw mais doon xaar ñu baree bari gisuñu leen woon ma bëggoon nga wax ma rek point de presse booy Niang bi nan nga ko gisee waaw point de presse booy Niang bi seetaan naa ko comme ni ngeen ko seetaanee seetaan nag xam nga fii wasaare moom loo bëgg gis moom ci affaire làmb lu jëm ci. Mhm. Eh, boo ci duggee rek da ko gis. waaw mhm. ah, waxuma ko nag pour publicité nii. waaye war na ma publicité sax parce nga yëngu war naa wax. waaye ku ci dugg ci lu jëm ci làmb di nga ko gis. Mhm. mais gis naa ne eh, man su man pour man dama ko rafetlu. parce que mbër boo ci tolloo. di ko def lépp lu gàllankoor sa bëri rek. war nga ko dindi teg nee. te Covid bi dafa gàllankoor seen bëri. te ñoom mbër gi du la bu kenn bu dee kenn ku nekk toogee sa ruq rek te nga dem ba sa temps toll ñoom booy ñaar dañoo toll ci wëris tooyal xaftaan mm-hmm. dañoo tollu ci bëri te temps boobu bàyyam toll woon na fa ñi mag papaam toll woon na fa man mi bàyyam laa toll woon naa fa mm-hmm. ñeneen toll woon nañ fa te mu tey mënatuñ ko mm-hmm. mais kon suñu toogee rek yënguwuñu yënguwuñu dégg nga covid bi am na ñeneen ñu ngi leen di defal ay taraanga ñeneen ñu ngi seet seen tojinu bopp jinax ñu ngi seet nu seen nu ñu tojee seen jinax ba mën a jariñu ci ci biir gouvernement bi dindi moom it dafa a yëngal dafa war a yëngal yëngal woote ay bokkam woo ñu ko déggal ñu wuy si la ah gars yi kaay ñu waxtaan ñu seet ah, lii ni mi nekk ci ñun te gars yaa ko bëgg nañoo bëri. ñu seet nan la ñuy def bu bëri ko. nan la ñuy def ba président boole ñu ci ñu muy dimbali. ministère bi nan lay boole ñu ñu dimbali. Mm-hmm. comme loolu leen fi nekkee. Mm-hmm. comme am na seen i nawle yu ko dimbali loolu man dama ko rafetlu man. Mm-hmm. man de wax dëgg yàlla woowuma sa parce que du sama génération. Mm. sama doom la waaye bu ma ci laajoon conseiller. Mm. woo may dama ko naa li nga def lu rafet la yëgal sa mbokki mbër yëpp. Mm. ku ñëw baax na ku ñëwul tamit nga xam ne xëy na. dafa am empêchement tax ñëwul. waaye ku ñëw baax na li mu def de man gisuma ci sikk. dëgg la am na solo dëgg yàlla gisuma ci sikk de. Euh, mais ci biir point de presse boobu gis nañ xale bi di Siteu. Mm-hmm. def na fa discours boo xamante ne vraiment képp ku nekkoon ci salle bi. Mm-hmm. jàpp na la. Euh, mu wax ba xolam tooy mu teg micro am génn dem ñibbi. waaw ci loo xamante ne message la boo xam ne daf ko lancé président de la république. mais génnoon na làmb moom Siteu. la doon wax mooy réew mi jafe-jafe yi xale yi di dund ñàkk xëy bi ci réew mi loolu la wax ba ba xolam tooy mu teg micro seetaan nga loolu. non seetaanuma ko. Mm-hmm. mais dama dégg rek ñu naan Siteu li mu wax li mu wax waaye xam nga li may wax bal la. Mm-hmm. nee naa la euh, sànq bi ñuy nuyoo nee naa la. yàlla nañ yàlla musal ci accident làmmiñ parce que bu xas bal la wax bal la bu xasee génn ba dem rek pour dabu ko day jafe hmm. waaye comme dañu woote woon ci affaire làmb lu defar seeni affaire hmm. te moom mbër la daf cee toll ci diggu temps hmm. ci jamonoom nañu wax ci loolu rek man su fekkoon day ba xale buy jóge ci man di dem te parce que ndongolo woo dama ci man la nekk ne ma man de Tapha Mbeur daf ma woo dema dañuy dem ci affaire bi ma ne ko waaw ma ne ko loolu de baax sa mbokki mbër yi lépp lu ñu boo boo mm. ci lu baax lu jëm ci làmb demal mm. waaye boo demee yemal ci làmb rek mm-hmm. luñ la laaju yemal ci làmb lii laa tontu mm. ndongolo moom moom ma ci woo ci kili bi laaj mën a dem bi ma ne ko demal waaye boo demee laajal tontul ca lañu laaj ca làmb ja mm-hmm. yemal foofa rek mm-hmm. boo yemee foofa leneen day am dina am bésam xam nga wax bu nekk day am bésam li ñu war a wax fépp tey jii mënuñu ko wax tey fépp ci kër lan la ñu war def dañu war a toog bàyyi li ñu war a wax tey nañ ko wax tey mais beneen yoon dafa loo xam ne bisam foofu la koy laajee bu boobaa bu taxee wax ko day dal. Mm-hmm. te te yàgg naa la wax ne la gis nga am réew. Mm-hmm. président de la république bu bëggee dimbali ñëpp. Mm-hmm. du jee day jafe. jafe waaye nag mën naa ji mën nañ ñun ñoo ko mën a yombalal. xam nga daan mën na ko yombalal. ñu fab suñuy doom fexe ñu jàng métier. fexe ñu am qualification fexe ñu am lu ñu jàpp fexe maanaam am ci lu ñu mën a yëngu. Mm-hmm. waaye bu fekkee ne danga nga man sama doole rek laa yaakaar bu sa doole jeexee foo jëm. Mm-hmm. c'est li ma la sama doole laa yaakaar amul benn fekk jànguma alxuraan jànguma école jànguma métier. mais dama ne sama doole laa yaakaar doole ji tamit. Mm-hmm. boo ci amee ndox foo jëm. soo amee jeune sa bëri taxaw na foo jëm boo amee cheville sa bëri taxaw na soo amee benn feebar dab la bu la ci dab ah daaw xam nga loolu mas nañ ko fay waxtaanee du répétition mais am na champion yu bari yoo xam ne ñu déparé woon mm-hmm. arrivé wuñu noonu dëgg la bu fekkoon am nañu qualification bu fii doxul fee dox waaw loolu am réew noonu koy dimbalee mm-hmm. ni ñu koy dimbalee wut métier jàpp lu dëgër loo mën a liggéey boole kook say sport dëgg la boo demee ba téye ci buum gi nag téye goo xam ne gi mm-hmm. bu boobaa nag mën ngaa la nga xam ne léegi su ma seeree sama mbir nag bàyyi nag dinaa calculer ne bu làmb jeexee lan laa war a doon nag. Mhm. parce que làmb 40 ans 50 ans nga jeexal. Mhm. mais yéen boo waree dund yeneen 40 ans war nga war a am loo yëngu bu la jëlee ci sa. Mhm. di mooy demal noppalu waaye weer bu foofu daal. man su ma doon moom daal dafa am loo xam ne place bi laaj na ko na ko fa wax mais li nga xam ne place bi laaju ko du ma ko ci wax du ma ci waxante loolu. damay toog sama mbokki mbër rek waxtaan ak ñoom ñu waxtaan lu ubbi làmb ji. parce que moom it talent la boo xam ne bii war na am bokk na ci ñi nga xam ne ñii war nañ tooyal xaftaan parce que. dëgg la parce que li ma la wax rek mhm. euh, am na solo père ginnaaw bi Boy Niang defee jékki-jékki nañ gis association des lutteurs en mhm. euh, ca bopp ba di Gris Bordeaux. Mhm. ñoom ñu woote see Kacha. bi ñu wootee keroog képp kuy mbër mu mag. gis nañ la fa gis nañ fa Balla Gaye Euh, euh, gis nañ fa Bombardier même booy Niang ñëw na. gis nañ fa ma njoon gis nañ fa yeneen xale yoo xamante ni ñëw ngir taaral bis boobu. woote boobu noo ko gisee ginnaaw bi booy Niang wootee ba pare association bu wootee ban ban gis-gis nga ci am. waaw damay euh, Boy Niang dama koy félicité ci ñëw wuy si boobu mu def. Mm-hmm. grandeur la def. wallaahi parce que grandeur bi mooy woote naa. xëy na ñu ñëwul mais mi ñoom nag bi ñu wootee mu si naa man dëgg xam na ni yëfam la bu baaxee yëfam la bu yàqoo yëfam a yàqu parce moo toll ci mbër kon tey ku yëngal rek ku ne du dem nangam nangam léegi ne bu hmm. yàqoo sa mbër parce que doole ji fi xaar comme ni ma la ko waxee noonu mu def noonu ñëw na grandeur am la def maa ngi koy félicité fils hmm. maa ngi lay félicité jëf ju rafet jooju ba def ñëw ànd ak gars yi bokkata liggéey bi parce muy benn ñaareel ba Gris mm. en tant que moom mooy président des lutteurs en activité mm-hmm. dégg nga ni mu wootee gars yëpp ñëw dawuy see ñu toog mm-hmm. loolu ñu ànd noonu ànd boobu rafet na mm-hmm. xam nga lañ lan mooy base bi na fekk muy ànd bu dëggu dëgg gis nga ànd bii bu fekkoon ne àndoon nañ ko ba ñu jëkkee xaaj ci seen xaaj ci bu njëkk ba kon tey seen làmb weesu na fii dëgg la kon làmb xaw ma covid bi ñëw de da yàq leen nii de waaye kon doon nañu gën a ami doole ñu àndoon nekk benn di xàccandoo di tegandoo te bu te bu bëri jotee nag ñu bëri ñafe ba mu tooy xëpp ñafe ba mu metti lool waaye bu bëri passé nag seen intérêt ñu di ko défendre ndoo maanaam ñu xëccandoo seen intérêt. Mhm. bu ñu ko doon xëccandoo loolu kon tey weesu nañ fi yëpp. dëgg la mais loolu lu baax la ñëw nañu kaas seen i droit. Mhm. ministre bi yëg na ñëpp yëg nañ leen. Mhm. monde bépp yëg na leen xam ne ñoom it dañoo bokk ci mbir mi. te war nañ leen a gestu. loolu lu baax la. man daal gis naa ne woote boobu tam baax na. waaye ñu àndoon ñoom ñëpp nekk benn tamit. noonu mooy gën a doo mooy gën a bari doole waaw ñoom ñëpp. ñoom ñëpp ñëw kenn bañ a manqué ñëw toog di waxtaan. Mm. lu ñu gis lu ñuy wax lu ñuy def ñu defandoo ko lu ñuy def ñu tàggandoo ko. Mm. loolu doon na defar seen doole lool. Mm. waaw loolu nag jafe na ci mbër nag. waaye parce que waaye booy déglu ñu ci ginnaaw ñi nga xam naa bu la dem de diw de bu la laalee nangam nangam dina la kii influencé yooyu. yooyu boo ko dégloo doo ànd ak kenn. Mm-hmm. waaw am na solo ñuy jaajëfalaat bu baax a baax a wax Père Birahim mm-hmm. mbokk yi di mm-hmm. jaajëfalaat bu baax a baax mm-hmm. Boy Niang numéro deux gis nañ gest bi mu def wane na ni làmb dong moo ko tax a jóg làmb dong moo ko ñor tey am na nu mu doon toppee ba mu wootee am na ñu ñëwul day toog ne du dem waaye gis nga def na ni làmb rek moo ma yitteel ñu koy jaajëfalaat bu baax a baax a baax man nag ñëwum foofu bett ma woon ndax xamoon naa ni vraiment njortoon naa ni dina ñëw foofu parce que staff bi mu am ak encadrement bi mu am nañ ko yebal mu ñëw. Hmm. ah kay damaa juum damaa juum père Birahim. Hmm, euh, kii la dalal. promoteur promoteur li li promoteur la dalal. Hmm. Euh, yi. ñoom ñëw fa. bi ñu fa ñëwee daal looloo jur coow ba ñu bare bari bari génn. loolu daal laa bëggoon nga waxtaan. waa jërëjëf. Euh, wax noonu man tey jii en tant que Bira Sène nit. bu ñu la dénkee daal da koy mate. bu ñu la dénkee dara. Mm. yow kilifa gi da nga koy mate. Mm. mooy tey tey jii par bu doon docteur Alioune moo fa nekk. Mm. Sadio moo ko fële de. wax dëgg mu woote tey ne ñii laa woo. keneen du fa dugg. déedéet. parce que loolu tamit wàññi sa daraja la. Mm-hmm. dem ci daje muñ la woowul sa wàññi sa daraja la. wàññi sa daraja la dégg li mu la parce que mm-hmm. ñoom dañoo am cër bu rëy ci làmb. Mm-hmm. entraîneur euh, promoteur yi ñi noo ah, ñu fa amee daraja. di jël ci seen i mbër ñoom ñooy pour ñooy defar produit bi. dégg nga ñooñu bëri yaag ñeneen ñi nga xam ne ñooy responsable écrit yaag mm-hmm. ñoo ñëpp dañ fi am daraja parce que kenn ku ne mbooloo ko yor mm-hmm. ñoom bu ñu amoon fula bu ñu amee fula ak fayda mm-hmm. téye seen mbër ne tey làmb ji ki dafa dox te te kenn du fi bëri ku nekk am am audace su téye sa mbër ñoom lu ñu doxle promoteur du doxle dëgg la promoteur daraam du dox parce que bala produit bi mu soxla pour teg ko ci terrain bi ci ñun la koy jëlee mais ñun du may toog sama kër téye samay booy rek téye toog leen fii toog bu fekkee déggal nañ ma jox nañ ma cër toog téye leen waaye ndaje muñ la wowul war a faa dem. boo fa tojee kaas yaa tooñ. Mhm. te ministre te présidentiel li ñu ko dénk bu fekkee mate na ko laa wax bu ñëwee dama naa la yéen du ngeen dugg. Mhm. parce que woowuma leen am ngeen seen bés dem leen toog dinaa leen woo bis sàngam wala ngeen seen bis bu ngeen soxla ma woo leen ngeen wax seen doléance. Mhm. loolu mooy yoon wax woo leen wax seen doléance parce que ni ñu amee cër foofu ñun noonu la ñu amee cër. kenn ku ne da nga am sa takkusaan boo xam ne bi su la neexee mën ngaa bind ministère mën ngaa bind Bira Sène mi nga xam ne mooy président bi hmm. mu woo ko mu ne ko soxla nangam nga wax sa doléance mu woo leen ni mu woowee promoteur yooyu waaye promoteur ñu woo leen war leen dara nga ñëw taxaw ci buntu ba taxaw damay dugg par force nangam nangam loolu ak manque de respect la hmm. loolu tamit ñu baal ma ak yaree di ku la hmm. te loolu day wane ne mbëri kat loolu euh, na dama ne kuy dem ci ndaje da ngay fàkk ñu woola ca ndaje ma soo ca bokkee demal promoteurs yi am nañ seen association mm-hmm. association boobu taxawal nañ ko ak ñun woo nañ leen ñooñu ñoo war a wuy ji mm-hmm. dégg la ña nga xam ne kii woowuñu leen amuñu droit jaar fa man de lii laa gis man man Birahim Ndiaye lii laa gis mm-hmm. damay toog léegi nag woo ña ma bokkal kuréel nag it woo leen ne kaay ah ñu kër comme woo nañ leen ñun tamit dañu bind bis woowu ba ñu ba ñoo woo parce que ñoom ñun bu ñu téye seen numéro du ñu doxle Ares dañoo doole jee des mais Ares bu doole ji ñëwee normalement kenn ku nekk nga yor nga déggal la mm. say mbër déggal la mm. dama ne bu ñu téye seen mbër rek làmb ji taxaw. Mm. football baa ngi nii école bi écrit ah, école kii ah, école kii nu mu tëddee maanaam équipe yi fi nekk yëpp tey ji suñu nekkee téye seen i jour nekk te kenn du fubal. koy fubal. kenn marché du waaw loolu moo doon yoon waaye dem fa taxaw di kaas ay ay mbër ñëw taxaw ci bunt ba di kaas ku nekk aalu fa di wax ko ne aalu waru leen fa dara leen fa. daal waru leen fa ku ñu fa def ñoo tooñ. man loolu laa gis lu ñu fa def ñoo tooñ ndaje muñ la woowul daal maandu ci rek. parce que ñoom. wax ji père li ko li ko gën a sooka mooy. waaw nee nañ euh, impact bi ñëpp la jàpp. waaw nee na ñëpp euh, ñëpp la laal ñoom surtout ñoom ñi nga xamante ni ñoo yor écrit yi yor xale yi. waaw gis dégg nañ ni daa am ndimbal bu war a génn. waaw jëm ci promoteurs yi moo tax ñoom ñu ñëw. pour kaas ñu jox leen seen écrit yi. ñu jox écrit yi. voilà mais ñooñu bu ñu leen joxee seen ndimbal. Mm. yow kay ñëw nga ci li ma la dañuy kaas pour ñu jox leen seen ndimbal. Mm. te man maa yor produit bi nga xam ne bii ñoom ci man lañ sama mbër la ñuy soxla. Mm. man la ñuy soxla kay ma téye samay gone rek. Mm-hmm. ba mu ñemee man leen man mii tàggat gone yi di leen entraîné dama ci am wàll. ba ñu woo ma ne ma yow it kaay jël sa wàll. waaye woo nañu pour waxtaan ak ñoom pour ubbi bunt bi pour jox leen. dégg nga nañu ne tekk ba ñu jox leen rek bu ñu leen joxee bunt la ubbil ko la bu boobaa nag di woo ministre bi woo ne ne ah ñun ñuy tàggat gone yor écrit nag di tàggat guddeeg bëccëg di leen jàngal xam-xam di leen fay te fay ñu dara nag ndegeem ñii ñoo man a sédd nag sama ñun. Mm. léegi naa téye samay gone ba xam ndax dinañu bëre loolu mooy yoon. Mm. wa man loolu laa gis man. mais su fekkoon dem fa dem fa taxaw di xëccoo naan woy dégg nga naa li ñu war a sédd la ñu war a sédd nangam déedéet nañu wut seen bis dem toog ba ñu sédd ñi te sédd ñu leen. Mm-hmm. pourtant ma la leen yi. Mm. bi ngeen bi ngeen déggee ne jox nañ leen. jox nañ leen kii mbëri nu ñu def génn yëngu. génn yëngu waxtaan. Mhm. commencé wu ñëw woo promoteur yi. dëgg la commencé wu ñëw tey ñoo tey rek. Mhm. àddina tey rek ko yóbbu dox. Mhm. da nga loo gis dara tey dara génnagul dañ koy wax noonu rek am na ñu génn ñun tam suñu wàll bu waree ñëw dinañ ñëw nañ tey rek. te teg ko ci yoon loolu mooy yoon. waaye dem ñu woo ñële taxaw moo doon bilaa seen dama ne kenn du fi dugg. te ku forcé moo woo police ñu jël si la. waaw ah, parce que dafoo yoon nit boo bëggee am doole da ngay jaar ci yoon. Zos moom wax na ba ni dina dina ñaan préfet. waaw autorisation day créer marche ànd ak keeg ñëpp ñëpp képp ku responsable écrit dina dem période yi nga dem. mais loolu droit am la. Hmm. loolu mu def noonu. Hmm. ne dinaa woo ñaan préfet pour dire hmm. citoyen la di. am na droit woo man damay dem damay dem préfet daal di woo seen ñi mu déggool. ñi mu déggool pour ànd ak ñoom def ko. ah ñooñu kay na dem. waaye damaa yaakaaroon ne dama yaakaaroon ne Zos. Hmm. tey jii bu fekkoon ne léegi ko dafa mooy président dóor dóoraat hmm. tey écrit bu baax la yor mbër yu baax ay champion la yor hmm. na ñëw ànd ak gars yi ñëw liggéey di kaas ay trois ci biir tey ñëw ànd ak ñoom la cay dëgg mu ànd ñu ci dëgg mu xeex taxaw ne lii du amul ma ci ànd waaye bu fekkee ne dafay womb rek day def marché ak yooyu ah ko déggal nañu ànd ak moom ñi ko déggal ba toog man de du ma ne kenn demal dama ne kenn bul dem du ma kenn demal du ma kenn waaye sama mbooloo ci boppam ñoom kenn ku def bala ngay def bu ko doon ñëw du woo si moom ñooñu deeñ ma tàggu am na solo waaw te bu ñu ma tàggoo booba nag décision ba maa koy jël. la may jël moom xam naa ko maa koy jël. Mhm. waaye daal li may bëgg a wax daal ñii di ma dégg mooy du ma dox ci dara loo xam ne lii ku ma ca fekk yedd ma. dëgg la waaw loolu moom maa ngi koy éviter jëm sama kéemtalaay kàttan. Mhm. la woon ak Baye Djili Père ma lay jaajëfal bu baax a baax. waaw jërëjëf may kontaan ci taaw lu ma fi wax. Eh, te nga yaakaar ne xëy na euh, lu. baax la ma sant ko yàlla rek bu ma njuumee tamit ngeen jégal ma xam ne waxu nii rek laa parce que père Birahim tam alam nii la quoi mm-hmm. man lépp lu ñu ma laaj it la ma ca xalaat lu nga xam ne bu doon man noonu laay doxal loolu laay wax mm-hmm. waaw ndaje daal moom buñ la ca wowul boo fa demee tooñ nga waaw ndaje daal moom mm-hmm. te te da nga am bés am jour am droit ñëpp nañu def nga def ko fekk defal noonu rek waaw ñu leen di jaajëfalaat bu baax a baax a baax encore une fois di leen tàggu ci tàggoo bi nga xamante ni. Mm-hmm. moo dul tàqalikoo ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xew la jërë ngeen jëf. ndaanaan laa ñaari yoon bol boo jaar booba laa mëne boo jaar fafa laa mëne damaa mën ci bii boor mën ci boor ak ci yëley boor bàyyi fàtt njaay nu ñoom tuuna rëy ma juut waa na roy ma saay. ak a baaxi jéeg ma yor si jéeg